di ñaanal sunu moom bi tedd ji nga xam ne moo waral jotaay bi tey ndax xam nañ ne def gi ñu koy def di ko jëmale ci ñoom da koo liggéey ba yàlla defal ko mu jot si mooy yorub dëkk ak ni jamono deme ñu baax ñi nga xam ne xam xamoon nañ ko démb man mii de fu ma taxaw bu ñu ne kii sëriñ Mor ndax man de waxal na boppam ne ma li ma liggéeyal sëñ Fallu xaj ngeen ci bu baax a baax képp ku ci góor lu mu ndaw ndaw ndaw dimbaleen nañ ci lu bëree bëri ndax mboolem lu ma sa wax rek wax dëgg yàlla nañ suñu bët waaye da ci am koo leeral ci ab bâche waaye xam ne ñu daal boroomu la ku yàlla may la ku yàlla dimbale la. mi nga xam ne mooy xalifa sëñ Mor Gueye ba ci sëñ Cheikhouna ba sëñ Modou Gueye ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ñoom moom mbaax gi mbaax lu ma wax ci ñoom rek am na lu des ba ci Cheikh Mbacke mi ci sama ginnaaw ba ci Alaaji Baara ñoom ñëpp yërmande rek lañ ma ëmbal ëmb seen fay kon maa te naa ni ngeen ma ko ëmbale rek. ni ngeen ko ëmbalee njaboot gi ñëpp ndax li may wax ñëpp laa koy waxal kon ñoo ngi leen ñaanal yéen ñi nga xam ne yéen la fi Mor bàyyi ngeen ak ngeen i kilifa yi yàlla na leen yàlla sàmm aar leen musu leen ci pakk yi ak ndog yi barki Cheikhul Khadim njaboot gu jigéen gi nga xam ne ñoo fi nekk moo commencé ci soxna Soda Gueye sama waajur ak soxna Sey Sey Gueye yàlla na yàlla sàmm ak seen rak ak njabootu soxna Amisa gi muy soxna Awa Dëru ak soxna soo ñoom ñëpp su ma tuddee ñun rek tudd naa tudd naa njaboot gi yëpp kon yàlla na fi yàlla def jàmm te dimbali ñu suturaal ñu taxawuñu bay suñ morgue yi bu mu am mukk ci lu ko naqare ci ginnaawam ci barke Cheikh Mamadou Fall wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. ñoo ngi nuyu mbooleem ku teew ci jotaay di jiital ci nuyoo bi Serigne Mountakha Bachir moom moom Cheikh Mamadou Bachir di ko ñaanal yàggal ko lool te may ko ak def noonu dañ koy ñaanale sëriñ Abo Barakam xalifatu Cheikh Mamadou Fadal di ko ñaanal yàlla bàyyi ko fi ba ci yéene yi yéene liggéeyal way juróom ak yéene koo liggéeyal Cheikh Khadim yëpp mu def ko ni mu ko bëggee ak mbooleem njabootu Cheikh Mouhamadou Fadal kaddu yi nag day kat yu digal di kaddu yu mënta ñàkk ndax ay nit ku leen dajale ba néew da nga war leen a wax li nga leen doon wooy lu mu doon lii ñu doon woote nag ci ndigalul suñu waajur la muy alaaji Mor Gueye mu digaloon ñu ko ñoo ngi sant bu baax a baax suñu waajur bi nga xam ne it moo tooy teew ci jotaay bi di sëñ si liggéey yi di suñu waajur ci saayir ak ci baatin taxawuñu taxawaay bu rafet nii la ko daan àndee ak suñu waajur kenn ku ne xam na ne aw yaramam mayeetu ko waaye xol bi ci boppam moo ko mënut a muñ ndax ci tawat la jógee waaye fexe na ba ñëw loolu lépp nag yéene la ak pas-pas ak mbokk moo ko tax di jot ñoo ngi ñaan yàlla fay ko te sàmm ko te aar ko te musal ko te bàyyi ko ci suñ kanam ba ci kanam kàddu gi sax moo ko naroon a jël waaye dane nañ ko jël waxaaleel ko ndax li suñ Omar wax lépp tënku na lépp ñoo ngi ñaan yàlla fayal nu ko aw yiw ak tànki ku jokk bokk li ci yàlla dayale lépp mu defal ko ko ci barkeb Cheikh Mouhamadou Fall ni ko noonu la ñuy baax mbooleem njaboot gi ci turu Serigne Fallou Gueye mi nga xam ne moo ne ci bopp di ko ñaanal yàlla bàyyi ko fi moom it mu yàgg fi lool te ci daraja Cheikh Mouhamadou Fall noonu itam lañ koy ñaanale mbooleem soxna Soda Gueye mi nga xam ne moo jiiti jigéen ñi ak mbooleem ñëpp rek ndax ñun ku ko def ndax mën naa nga jum waaye ñoo ngi sant mbooleem njaboot gi nga xam ne ñoo taxaw bis bi ba agsi fii suñ seexu naa ak suñ Modou Gueye buñ ñi ci des ñëpp ak laaj baare nga xam ñoo ngi sant bu baax ñi nga xam ne itam suñuy soxna lañ nekk ci kër gi jàpp ci liggéey bu baax a baax a baax ak ñi nga xam ne ay sët ay sët lañ jàpp ci ak mbooleem ñi nga xam ne ñooy ay dëkkandoo ndax dëkkandoo dafa am àq yonente bi da ciy wax ba yaakaar ma sax dañoo war a doon dëkkandoo yii ñu dëkkal nag may lañ ne benn lañu ndax ñii rek lañ mos a dëkkee ci ci ci ci ci ci jamono ju ne lu rafet rek moo dox moo mos dox suñuy diggante kenn mosut a ci ak kër ci kër yii ñu dem na doom di àtte diw ak diw loolu lu jafe na ci ak dëkk ñoom ñëpp taxaw na ci jàpp ubbi seeni kër yaatal ñu rawatina njaboot ak seen Cheikh Lo gi nga xam ne Serigne Cheikh Lo ak El Hadj benn lañ woon ndax bayit woowee sëriñ euh, fallu doon leen firil bi ñuy liggéey jumaa ji nga xam ne sëriñ fallu dafa tere woon ku tabax euh, këram ndax te tabaxuk sëriñ bi matut sëriñ bi matut ndax bayit woowu sëriñ bi da wax ne rabbi stajib wal tukammil maa nawaytu ladaa tuubaa latii bika tubnaa fii ka bunyaanaa sëriñ fallu bi ñu koy firil sëriñ Cheikh Lo mi ak alaaji Mor Gueye dana leen bunyaana jooju lu tax sëriñ bi def ko jàmmoo mooy tabax dara wax ak tabax ya kon seeni tabax dana àgg kon kenn ni yitte tabax sa kër na ngeen song tabax gii rek ba mu àgg bu àggee rek ngeen bëgg lépp da ngeen ko am suñ lam wax na ko léegi ci wax ji ne ñoom bu bëgg a gis nit àjjana xool leen ndax suñ tubaa ko wax wax fekk li man banaw binaa ahar rafi yow yàlla na nga jéggal ñi nga xam ne dañoo jàpp ci tabax jumaa ji te ñoom ñoo doonoon ndongoy jumaa ji alaaji Mor Gueye nii kenn na ci ndongo yooyu moo yoroon ndox mi nga xam ne moom lañ doon moo ñëpp jumaa ji muy jaajëfal kon ak njëggal euh, ñaan da du doy te it Sëñ Tuubaa dafa wax ne isin doxa u yan faw mayitel lu xubar ba yan faw xayya way yu jigul uñóor ñaan day jëriñ ñiy dund waaye day jëriñ ña nga xam ne ñoo noppalu ba nekk bar sàq Muhammad ya waxati feneen ne euh, waa xas waa xamul nas yaay li nam waati raddu ila dunya maa laa yaati ñi nga xam ne ñoo faatu ba nekk barsax Muhammad yéene boo leen laajoon lan ngën a bëgg mooy dellu adduna donte ab saala ñu jëf ko ci nga xam ne ñun la bàyyi ginnaaw ñu di ko ñaanal te digaloon ñu ko te te digaloon ko ngi ñaan yàlla lépp luñ fi jàng ci alxuraan mu dajale ko mu jotali leen ci yoon ba ak mbooleem mooy nawlu yaag ñu bokk ci ñu bokk ci bokk gi ak ñi nga xam ne bokkuñ ci ñëpp rek ak mboolem julli rek ci barkeb Cheikh Mouhamed bi ñuy wax it euh, la sëñ Abdoulaye Bousso mii ñëw di dëgg luñ doon wax di jóge ca xet ba ba ci muy ca eh. loolu dañuy wax dañuy wax ne ñaan ko nangu ñoo ngi ñaan képp koo xam ne jàpp nga ci bis bi ci dëkkandoo wala wala xarit wala soppe ak sëñ Modou Mbaye mi ak ñoom sëñ Modou gis xam ne ala ñoo bokk bàyyi ak sëñ làmp mi doon wax benn famille la ñun ñoo bokk benn bàyyi ñoo bokk lépp kër gi min nañ leen fu baax ñoo ngi leen sant ci turu Sëñ Fallou Gueye ci turu mbooleem njaboot bi di leen wax ne bis bi li tax mu demee nii sax dañ ko ndax xew-xew yi xaw a bëri yàlla xam ne ne kenn waxut ko daanaka dañ ko jàpp noonu def ko ndax ndigal loo xam ne nii moo bind aw kayit bàyyi woon ko fi lu mat ñaar fukki at daan ne bis bii ma Sëñ lu joxe woon dëkk bi su dellusee ni ngeen ma sant ne yàlla ak Cheikh Mouhamadou Fadal def na ko ay yoon doog di fi jógee nit nag li eh, nga kóllëre gi xam ne nit yàlla da koy laaj ëllëg mooy nit batale ko la sa waajur ba batale woon te lii moo ko batale woon fas yéene cee bàyyi suñu laaj ba keroog ñu koy fekk di ñaan yàlla dëppale ñu ak ngërëmu sëñ ngërëmu sëñ bi te yàlla dugal ñu ci ñaan googee nga xam ne moom la ko Cheikh Mouhamadou Fadal ñaanoon ne ko yàlla boo yàq yàlla boo ne di ci ñaanaale mboolem mooy ndaw li nga xam ne itam nekkoon nañ fi daaw te rek ko ab jarbaatam ku ñuy wax sëñ Madiagne bokk ci ak mbooleem ñi nga xam ne nekkoon nañ fi daaw te nekkuñu fi yàlla yërëm leen te jéggal leen àtte leen ci yërmandeem ju yaatu ji te bañ leen àtte ci seenu jëf euh, ah, yàlla yàlla àtte leen ci yërmandeem ju yaatu ji te bañ leen àtte ci seeni jëf akum maandoom ci barkeeb Cheikh Mamadou Fadal comme suñu ëpp daal di ak di ñaanal waale baax suñu ëpp sama càmm moom it nga xam ne ak dëkk bi la woon bi mu fi jógee moom it yàggut ñoo ngi ñaan yàlla yërëm ko te jéggal ko atte ko ci yërmandeem te bañ ko atte ci jëfam maanoom ci barkeeb Cheikh Mamadou Fadal ak mbooleem koo xam ne daal jàpp na ci bis bi sant dafa mënta weesu sant waaye ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant suñ mbokk yi ñi nga xam ne itam suñu wëllër leen muy suñ Tamsir mii ak suñ Massaer nga xam ne foo ma gisee ñoo bokk fenn fu ñuy dem gi fi teew suñ tàkkoom suñ Falloog Cheikh Mouhamadoul Mourtada teew nañ fi ak soxna Mame Bousso ci teew fi rek waaye mag ñi nii ci bâche bi ñoo ngi leen di ñaanal li suñ aboom Cheikh Mouhamadoul Fadal it yónni na fi ak mbooleem njaboot gi ak ñëpp ku fi teew rek ak suñ Cheikh Oumy ak suñ Lamine ak ñëpp rek di ñaanal yàlla nañ ci daje gërëmul Serigne Fall mi taxoon ñu ko def te yàlla defal ñu bañ a yàq bañ a yàq kon Serigne Abdoulaye nga defal ñu ñaan rek. nangu leen ñaan. amiin amiin amiin amiin.